ñu faloon ko juróomi fan ak benn ci weeru mars ci atum 2024 jëwrin gi ñu jagleel wàllum intérieur jagleel génnam bu njëkk takk der yi nga xam ne ni ñoo nekk biir Dakar. ñu sas ko wàllum kaaraange jëwrin gi fas yéene ci lëkkaloo ak takk der yi ngir mission mam mu gën koo mën a doxal. gannaaw bu mu jaaree commissariat central bu Dakar camp Abdou Diassé daal dinay amal nemmeeku ci commissariat bu Mbaaw balaa moo rafetlu liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne ni takk der yaa ngi koy amal ci biir réew mi. comme ni ngeen ko xame ñoom nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg du ñu yandal du ñu fanaanal comme on dit ñu ngi tout le temps 24 sur 24 ñu ngi liggéey délinquance bi défi la immigration bi défi la défi yu bëri mais loolu lépp ñoom organisé wu ñun pour taxaw ci sous la direction de contrôleur général Seydou Bokaria. Ah, bu ñu sukkandikoo ci moom aar askan wi ak seeni alal bokku na ci mission yu am solo yi nga xam ne nii ay ñooñu Bokar yàgg a ñoo ngi koy amal ci biir réew mi. parce que sécurité amul élection bi du am leneen du am leneen du am donc la sécurité mooy moo moo moo tiim lépp moo ëmb lépp. donc nu war ci di bàyyi xel xam ni policiers yi liggéey bu ñu def bi liggéey bu metti la te nun nun koy population bi nun koy defal donc population war na ci gën a bàyyi xel gën leen comprendre gën leen ci ci jàppale. ay fan rek des ngir ñu dem ca bañ gàcce ya ngir tànn njiitu réew jëwrin gi nga xam ne ni moom la ñu dénk biir réew am njort bu rafet ni tàkk der yi daañu ci am taxawaay gu am solo ngir ñu amal jongante ya ci jàmm ak salaam.